mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bu ñu santee suñu borom subhanahu wa julli ci yonent bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam santati suñu yaakaar yi teeg ëllëg Cheikhuna Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul waaye di sant nag ak yeesalaat suñu pas-pas ak suñu taalibe ki nga xam ne mooy suñu buntu ci Serigne Touba di maam Cheikh Anta borom ak gaawaan amaat mbégte nag ci jàkkaarloowaat ak yéen ci ndigalul Serigne Mor Fati mi nga xam ni mooy xalifa maam Cheikh Anta ci ngir euh, ci ci njiitul Serigne mi nga xamante ni moo fi Cheikhul Khadim te lépp lu ñuy defal Serigne Touba muy jaaree ci moom yeesalaat li nga xamante ni moo bàyyi ko ci Serigne Touba ci ba mu liggéeyalee boromam subhaanahu wa taala ba suñ borom gërëm ko liggéey ba mat mu war a dellu siwaat fii ci réew mi waaye jën fii ci Daaru Salaam waaye ci taxawaay bu am solo bi nga xamante ni Serigne Jiin Abdul Xaadir xalifa Serigne Modou Mamoun taxaw na ko ci ànd ko lu sëñ gaawaan jaboote ci waajtaayu màggal daaru salaam képp ko ne xam na ni nag suñ yegsee ci jamono bii nga xamante ni nii njaboot gépp jullit ñëpp taaliba yëpp seen yitte leen rek la mooy màggalaat bis bu am solo boobu yi nga xam ni ci la Serigne Touba jóge woon ci tukki bi bis boobee nga xam ne ci la doon wax ian ilaa xaw mi saxaadatana wala tag fi naa yoma jëm xalqi dellu si googee nag fan la ko defee woon mooy dëkk ba nga xamante ne ci la doon wax suñu borom naan ko sa altuhu bil Mustafa xayri muy daaru salaam gi nga xam ne Serigne Touba ko sancaloon boppam di dëkk bu mu bëggoon lool nag di dëkk boo xamante ni ay fàggu téefam yëpp suñu borom subhanahu wa taala da ko fee nangoo dëkk boobee nag mooy waajalaat bis boobu yi nga xamante ni jullit ñëpp ñoo ko bokk bis bi nag incha allahu rabbi soreetut waaye ñu fas yéene ko waajal nag ci ndigalu Serigne bi ci euh, salal dëkk bi comme ni nga xam ne lañ ko baaxoo defee at mu jot ñu ànd ko nag ak mboolem njabootu Serigne Gaawaan gi yëpp waaye sëq jotaay bi nag itam ñenn ci biir njaboot gi muy Serigne Modou Rokhaya Mbacke moom Serigne Jili xalifa Serigne Modou Mamoun feggoo ak Serigne Modou Mamoun Mamoun Mbacke moom Serigne Abdou Diando moom Serigne Moudou Mamoun feggoo itam ak Serigne Saliou Mbacke moom Serigne Hamidoun moom Serigne Moudou Mamoun ñu teew fi ci ndigalul seen i kilifa yi nga xamante ni ñu nekk ci bopp kër gi ñu ànd ko ak donga yi yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi muy dawaa iri muy association yi muy mouvement yi muy mbootaay yi nga xam ne jigéen ñi ñoo ko séq ñoo ñëpp ñu daje fii jëwriñ ñu daje fii ngir lan woote bis boobu nga xam ne moo war a def la 12 incha allah muy le 12 juillet ngir tatal dëkk bi comme ni nga xam noonu la ko seriñ bi bëggee ngir taaroo ko gan ñi tatagal leen waaye ànd ak ñoom màggal bis bu am solo boobu. maa ngi leen di nuyu te di leen ziare yéen ñi fi toog ñëpp nag maa ngi leen di nuy bu baax te di leen ziare di soññee ci liñ daan soññee rek nag. di ziyaare suñ sëriñ su baax si fi toog ndax suñu xel dal na torop tey ndax bu ñuy woote lu toll ne mbalem daaru salaam ñu ne suñ sëriñ yu baax yii njiil li di sëñ Modou Rokhaya moom sëñ jiili mi ngi fi toog feggoo ak rakkam kon suñum xel dal na torop ndax mel ne na am nañ fu ñu wéeru so ñi ngi soññee nag suñu mbokk jigéen ñi ndax buñ nee mbale rek dañ ne jigéen a ko moom ndax jigéen moo moom set kon nag nañ ko daan defee nañ yokk suñu taxawaay ren yokk ko bu baax a baax takku taxaw fas yéenee bale dëkk bi bam set ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci côté añ bi ñu nekk ca ña nga xam ne ñoo nekk tamit ci côté dem setal dëkk bi it ñu setal dëkk bi bu baax a baax maa ngi soññ sama moroomu jigéen ñépp bàyyiwuma kenn nag. ñu ngeen ko xamee nag at mu jot ni ñu koy baaxoo defee su màggal Daaru Salaam jubbusee comité d'organisation bi am mel ni comité boo xamante dañ koy teg yor set setal bi ñuy waajal màggal gi ngir setal dëkk bi balaa gan ñëw si kaw loolu nag setal moom ko wax dañ si boole ministère environnement ak ñoom la ñuy jiital ñu nga xam ne li ñuy def ñoom lañ koy defal ndaxte ñoom la ñoom la ñoom la ñoom lañ teg si si bi bopp dëkk bi. président doyloo leen teg leen ñu yor wàllu set dëkk bi kon ñoom kuy seetal dëkk rek ñoom ñoo si war a jiitu ñoom ñu ngi leen wax ñu ñu jàppale ñu si ay euh, matériels yoo xamante ni nit ñi dinañ si mën a jàppani ba seetal dëkk bi bu ñu wàccee si compétence transfert yi lu mel ne mairie ñaari mairie yu ñu seq di mairie Touba ak mairie Mbacké ñoom tamit ñu taxaw bu baax a baax seen côté di wax ni ñoom nañ ñëw jàpp si bu baax baax ni ko daan defee at mu jot lu si mel lu si jëm si jumtukaay matériel. wala oto yoo xamante ni ñuy yóbbu mbalit mi dañ ko soxla bu baax a baax ay pel mécanique ndaxte euh, dañu toll si nawet euh, mbedd yoo xamante ni day taa war nañu sëkk mbedd yëpp balaa taw bi di ñëw euh, waa UCG ñëpp xam leen ci ñoom tamit si setal si setal dëkk bi at mu jot ñu ngi siy jàpp ñoom tamit ñu ngi leen di woo bu a baax jox nañ ñu seen ab seen seen accord de principe boo wax dëgg yàlla nee nañ ñu ngi si daan def daan nañ dinañ si def leen du kawe njort. am na yeneen ay bonne volonté yoo xam ne ñu ngi si dëkk bi ñu ngi siy jàpp bu jiitoo suñu kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo si njëkk jàpp daanaka lépp ñoom ñoo koy jagal waaye dafa am ay nit yoo xam ne il ñu tudd leen ku si mel ne euh, Aliou ñu ngi nikel wax dëgg yàlla daaw jàpp na si bu baax baax ñu ngi ko si woowaat ku si mel ne soxna maam Anta Dia euh, moom tamit wax dëgg yàlla jàpp na si bu baax a baax yeneen ñi nga xamante ne ñu ngi si dëkk bi te ñoo xam ne yëguñu ko woon wala ñu egsi wuñ si ñoom ñoo xam ne ku si gis lii wala ku si seetaan nii rek ñu ngi soxla nañ sa sa ndimbal bu baax ndaxte ay taalibee ñoo koy def ñu ñu ndaw yi dëkk bi ñoo koy def di si woowaa dëkk bi yëpp fépp la mbooloo di jógee di fi ñëw te soxla nañ euh, jox leen ay xéewal ndaxte Daaru Salaam ku fi ñëw war ngaa xéewalu bu baax a baax war nañ laa teral bu baax euh, oto yi nga xamante ni dañ ñu koy abal dañ siy def gasoil kon loolu ñu ngi soxla euh, soxla nañ bu baax a baax ndimbal yoo xamante ni des si dem ñu ngi woo tamit suñu mbokk daayira yi nga xamante ni ñoom lañ ko àndal ñu nekk fii ak association yi nekk si dëkk bi. seytaan rajim bisimilah barke sëñ Tuubaa waaw mbokk jullit yi mbokk taalib yi ñu leen sant bu baax te di leen gërëm di wax na ci kàddu sëñ Jili Mbàkke mi kilifa ak Daaru Salaam mi ngi rafetlu lii lool te xam ne xale yi ko def ci ndigal lañ ko defee loo xam ne ñoom ñoo ko waroon def ñama ñu ko defal kon nag loolu moom sant rek la jéem def te nag mi leen di yëgal ne koo xam ne war na ko yëg ko yëg mi ngi jiital waa kër maam Cheikh Rahim Fall Baye Fall yi képp ku dëkk ak li ko wër gaawaan fépp rek ndax maanaam bu kenn ku ne commencé sa biir néeg gaar sa ëtt génn sa bundu kër yaakaar naa ñuy jóge feneen di ñëw du ñu fekk lu am solo waaw nu ko ñëpp defee noonu daal moom daal nee na daal nu mu gën a mën a yaatoo na ngeen ko yaatoo noonu te lépp lu ci waay bëgg na nga ko ci fas da ne bisu sëñ gaawaan moom lépp xaj yéen a ñëpp jàmm ñi ngi ñaan daal ku ñëw yàlla nañ ci dajee ak sa bëgg lépp loo ci fas mboolem sa kaw sëñ Jiili daal nee na mi ngi ci woon ñëpp xale yi daal li ñu def xolam sedd na ci lool lool lool lool lool waaw mi ngi ñaar ñëpp jàmm tawfeex daal suñu borom defal leen ci ndam xam ne bis baa ngi noonu le 12 incha allah di ko fàttali nag ñoo xam ne am nañ ci taxawaay bu am solo Matlabul Fawzayni bi nga xam ne Serigne Abdou Lo moo ko jiite ñuy am taxawaay boo xam ne at mu jot dañ koy wane waaye ahlu café bi itam soxna maam Issa Mbacke ñoom itam seen taxawaay at mu jot dañ ko ci ràññee lool fédération Inna Allaha Maana euh, Touba maam Cheikh Gueye jëwriñ jiite ko ak mboolem dawaayir yi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi ak li wër dëkk bi yëpp rek xam ne fan la ñuy bale daaru salaam daaru salaam nag moomeelu murit yëpp la daaru salaam nag moomeelu jullit yëpp la